nakar ak xol bu jeex lañ daal di jannoo ak taskatu xibaar yi ñoom ñi leen nekk ay étudiants ressortissants wu Kédougou jamono ji nag liñ bëgg mooy autopsie ki nga xamante ni moom mooy ma Mamadou Yoro Tunkara ñàkk bàkkanam ci ay manifestations fale ca Saint-Louis. corps bi moo ngi hôpital principal d'après lu ñu dégg moo ngi hôpital principal comme que kenn gisu ko. mënuñu mënuñu leen wax exactement moo ngi foofu ñoo ngi foofu chaque jour ñoo ngi koy passé hôpital principal membre de la famille ak ñeneen ñi ñoo ngi foofu mais ba léegi kenn amul accès ci corps bi. suñu sukkandikoo ci kii fi teewal njaboot gi li mu xamle mooy ay fan a ngi nii ñu leen di pamti pamtee ca hôpital principal nanguñ benn yoon wax leen lu leer ci mbir mi. mbir mi na leer. problème bi mooy ñoom dañoo dañoo faagaagal suñuy droit. dañoo jël jële koor gi Saint-Louis indi ko dakaar waxuñu kenn ci famille bi kenn yëgu ko ñu indi ko euh, hôpital principal waxuñu ko kenn man mii di wax ak yéen man maa représenté famille bi au niveau de dakaar man maa dem hôpital euh, principal altine mais ba léegi gisuma koor gi. Moustapha yi nekk ancien maire Kédougou moom nag dafa ñëw dooleel leen teg si mu ngi xamle nii. bi la mbir jéggi na dayoo. le minimum en terme de dignité pour accompagner ko mën a dëfal mbokk yi mën a dëfal nit ñi xam ni lii metti na leen ñoo ngi leen di pamti pamte mais dans une administration normale normalement du ñoom sax ñoom ñoo war a wëri dans une administration normale da ngay toog ñu ñëw fekk la jox la sa kayit ñu ñëw ne la gauche la droite la mais yow yaay daw comme il l'a dit tout à ñëw foofu 16 heures ba 22 heures ñu dépassé waat leen dem noonu kenn waxu leen dara mais mais mais c'est tout simplement imaginez la souffrance la maman boo xam ne ci veuvage la nekk nii en ce moment doomam mu ñàkk ko xamul doomam mënul gis doomam yónni ay ndijaayam mënuñu leen jot mënuñu ko gis mais c'est atroce. li ñu xam ne mooy dinañu wéyal seeni mobilisation ba mbir yi daal di leer.